te ku nekk ci woyofal xam nga ne yokku na ñëpp a ngi jooy ci ci ci réseaux sociaux yi Senelec jot na nag ñu ubbi ko nag ñu ubbi nag mu am nag kuy concurrencer Senelec Senelec mënu ko ne dañu rey nii rek cauchemar mooy la teg sénégalais yi Senelec ak SDE bii nga xamante ne nit ñi dañ naan fay ay 7000 francs mille francs léegi da ngay ñëw ñu ne la 50 000 francs 80 mille francs ndox courant ñëwagul. te boo demee dina jox benn explication bu plausible moo tax loo gis concurrence da caa baax nañu ubbi sénégalais yi ñoo toog concurrencer leen comme nuñ koy defee ak CSS bële suukar ko defee lépp day wàññeeku parce que quand la demande est trop forte offre bi dafay cher fekkee benn nit rek moo ko yor dafay cher foofu la ñu toll monde mondialisé ouvert mais protégé buñu ñu bëggee liggéey vraiment Sénégal dinañ ko def hein? mais volonté bi rek mooy des souvent volonté bi rek mooy des souvent depuis bi ñu falee ba léegi le ministre de l'agriculture ah on l'attend nee na gerte bi baax na dépassé nañu kii mais déglu nañu les producteurs dégg nañu euh, ñi nga xam ne ñoo nekk dans le milieu ñoom wax nañu gerte bi baaxul Sénégal ngay gis muy produire gerte chinois yi ñëw di ko jënd

mais xoolal ta dëkk bi nu mel so génnee Sénégal dem bitim réew da ngay do bëgg sax dellu si sa tank boo wacc wàcc aéroport rek da ngay bëgg dawat dawaat dugg ci avion bi parce que dëkk yépp ñi ngi liggéey seen dëkk yi dafa set xalé yi dañuy liggéey do gis yelwan yelwaankat fenn yelwaankat yu jógee ci dëkk yooyu ñoy ñëw fi tuur si fi nous sommes dans une insécurité totale nit ñi dañuy xëy ñu nañu nit chambre parce que les frontières sont poreuses tout le monde entre et sort quand il veut sénégalais yi nekk ñu ci sécurité sénégalais yi xiif nañu rafle nañu la ñuy xaar mais du santé chaque jour te ñoom politiciens yi lu sénégalais yi ñoo parce que seen taxul ñu jóg mais il faut une assemblée légui nak yéenay xam assemblée ban ngeen bëgg hein ndax assemblée majorité forte gouvernement bi ngeen koy jox wala da ngeen diviser la la poire en deux mu am cohabitation ku ne xam sa place loolu moy indi liggéey ci rew c'est ce qui se passe en France mais jël doole gi yépp teg ko ci benn hyper président te xam ngeen Sénégal le régime hyper présidentiel fort président moy Bour moy bumi lu ko neex am assemblée de euh, euh, président Moufi am ay député président Moufi am lolou nak ci sen loxo la des sénégalais boudé son en ngeen ngeen bëgg rupture yaakaar naa ne carte mom moy arme le 17 novembre nous génn dem voté massivement bu ko defee ñun ñëpp ñu gis suñu bopp assemblée nationale des députés du peuple buñ ci jógee nag ñu waxtaanee nag euh, mode de élection des députés comme ni ñu ko defee woon si ci maire yi bu ma demee voteel diw man xam ne kii mooy nekk sama député man mais da ngay dem voter ji xëy suba sa député boobu duggul parce que listam yeggul turam yeggul ñoom ñooy jël seen ay nit teg leen ci kaw yooyu moo fi war a jóge on a un bon programme référentiel 2050 mais bu fekkente ne une volonté amul buñ jógee ci élection législative Il y a quelque temps on va on va penser à la présidentielle de 2029 boobu une guerre la buy ñëw léegi ci kanam ndax Sonko entouré wu avec ses ses sa cour <laughs> kon doful di 2029 la ñuy 2029 jëm après élection législative yi bu parce que lu majorité wala on majorité buñ ko amee ba ba mun euh, mun bu euh, mun après ñu 2029 si près si loin askan seen soxla day wala ñun askan suñu donc euh, yeewu leen sont sénégalais ñi wax yewu sénégalais yewu nañu ñu am ku man di sont tok di sont waxal sen soxla ak ñeneen ak ñeneen wala ne sénégalais du problème ñom nañu sont rek defaru là. ñu Ils ñu jox sont sen Ils ñom euh, bu nekké ci dëgg Ils su intérêt personnel bu sama tukki avion parce que ñu ngi may pour une mission donnée mission au sénégalais ils s'en fichent donc ful la yéen koy may seen bopp ah. ñun duñu mooy wax te dinañ wax parce que dañu bëgg soppeeku dañu bëgg réew mi parce que réew yi dem gënuñu parce que ñoom li am pour développer sen réew amna fi c'est ça qui fait mal bu doon réew mi amul dara sax mais réew mi on a tout pour être au top mais les pôles territoires yi ñi wax ni nan waaw dans les huit pôles on sera là-bas pour la campagne Pour yi buñ koy dégg tay la pôles yo nga depuis Mamadou Dia ñi koy wax président bu ñëw mom lay teg président bu ñëw mom lay teg xalé yi bu ngeen jëlone les territoires le développement c'est par la base Diok dem ci kaw buñ ko defoon ñu fi nekk ñëpp bëgguñu fi sax yendu ñun ñepp dañuy génn dem ci suñu village tok fa di liggéey bu dee agriculteur laa ma tok sama sama sama sama village bu ngone ma tok ak sama njabot bu dee pêcheur laa ma tok ci Langue de Barbarie bee jëni gundaanaat ak nos ak sama njabot mais géej gi amatul dara licence de pêche yi ñu doon wax ne arrêté nañ ko ana fu mu mujj ana jën ñun ñuy dem marché di jënd xam nañu jën amul nous, nous, nous, nous mangeons le, euh, les, les, des poissons euh, ou les produits halieutiques issus de la pisciculture. ndeysaan loolu moo fi nekk cag-cag yi ñu delloo leen fañ jóge Nous ñu teg cag-cag ndax cag-cag du liggéey ils sont en insécurité ces jeunes C'était au boo fa demee dañ leen di indi di comme ay weñ ñu yàqu ci talibi. bi ñu yàqu ci talibi un ministre de la santé bo xamante ne doo ko gis ci dara kenn xamul ndax ministre de la santé amna Sénégal kenn xamul ndax ministre de la santé amna Sénégal ay profil yo xamante ni après les élections ngir yalla pour qu'on se mette au travail définitivement président de la République du Sénégal indil ñu ay profil yu bax bul déglu sa Pastefien yi nga xamante ni pour ñom ñom rek ñofi fi ne kenn warul falu y a de bons profils au Sénégal jëlal profil yooyu nga liggéey Sénégal ndax yow dañ lay xaar au résultat ndax nag au soir du du de février 2024 duñu ne président Ousmane Sonko de président Diomaye Fay lañ Sénégalais yi di laaj résultat bu baaxee ñu jox la deuxième mandat second mandat su baaxul ñu jëlee fi keneen ñëw loolu la de donc sa profil yi ma gis nii gouvernement bi da ngeen fi jëlee de. ndax baaxuñu de liggéeyuñu de mënuñu sax li nga len dénk touti rek mo ci tané touti rek mo ci tané ay ministre de la famille bo xamanteni ni nañu Abass Fall da nga jot 5 milliards pour de vin ngol au lieu nga ñëw léral si Azer bi scandale Azer bi scandale ONAS bi nek fi ak yenen ak yenen au lieu nga ñëw léral yo Abass Fall nga nan borom Dakar bo xamné kenn xamu fenn nga ñëw au lieu nga ñëw liggéey nga ñëw tok ak sénégalais ah liñ may mal du man waaw ministre de la femme de la famille génn bi buñ buñ la ko la tay na yow ñu dénk la suñu suñu suñu suñu famille nga am éducation de base bi nga mom lañu la askan wi ngay taxaw naan ma waxal ma tay Russe nga xam nga né ba ngay baal war da def tempo tempo ngeen réglé té xam ay am la tête sur les épaules ngeen ko da ngeen a laaj réew mi jox len ko avec ak ak ak fu ñu jógee boo egsi fii kenn bëggatul ñu delluwaat fa nak dañu bëgg ngeen jël profil yu baaxa baax ñu liggéey Sénégal ñun ñëpp paré nañu pour nous mettre au travail avec vous mais à condition ñu sentir ne yeen bëgg ngeen liggéey té kuy liggéey nag dafay jël profil yu baax ci administration amna de bons profils il faut les maintenir là où ils sont ñu liggéey mais ngeen di jël ay nit yo xamanteni dañuy dem ci école be xey suba ñu ont dem ñu sax école ñu ay master rek ñu kenn xamul master yi nga comme de petit pain et je respecte bien ces gens yu am ay master mais am na parce que gagné dañuy diplôme CV résultat donc président ci sa mi commencé liggéey nak li dem ci askan wi di len deglu waxon nako fi fii ko président bi ma gis gëw mo mu réussir sa mission parce que du déglu askanam bo faloo nek ci rew sa premier amna fofu fu mu wara yam yem da nga wara wax ak sa askan néna ko joxul xalé yi fu mu ne nopp bu baax bi la mom lañ ko jox na wax ak xalé yi ñu dégg tolloon na jamono boo xam ne bu leen waxoon delluwaat leen ci seen village maa ngi ñëw indi une agriculture moderne mécaniser maa ngi ñëw seen ginnaaw dem leen maa ngi ñëw xale yi dañuy dem su dee ne pêcheurs yi dem na ngeen toog bu leen jëlati gaal gi di dem licence de pêche yëpp laay arrêté jën yi danañ ñëwaat ñëppay dem toog mais defu ko Diomaye fay président de la République boo ko gisee lan lay def ci Sénégal soit dafay génn chaque samedi premier samedi du mois mu génnee bale ba bale depuis bu mu faloo ak baleem boobu ñu ko en pleine nuit ba léegi de moom ci bale rek la ne xëy na bu paree ci bale yi ñu ko sant dina wax ak askanam damay ragal nag mu trop tard mu trop tard parce que son son premier ministre est en train d'ouvrir le feu partout fu nekk mu ubbi fa hostilité kuy liggéey dootal ubbi ay hostilité président Diomaye Faye chaque jour ñu interpellé la déglul sa askan président yu nekkoon dans leur bulle toog ci palais ba

ñu nekkoon si moom jàppalewuñu ko surtout doomam boobu Karim Wade ñu jële ko fi indi Macky Sall moom it il n'est pas blanc-seing ñoo def fi liggéey nañu waaye am na ñu fi def mi ngi tege te ñu ngi xaar aussi euh, ñu fi nekk léegi yor dossier yooyu ñu leeral ko ndax alalu askan wi ni ñu ko caxat caxatee bu dee loolu ñuy wax dëgg la ah sénégalais yi bëgg na ñoo xam ñu sanctionné leen bu ko defee keneen dootu ko defat ndax Sénégal dañu sonn. lu ñu liggéey ñu dag ko ci impo loo liggéey bu ngoonee yaa ngi daw wuti foo wéeru ak meew boo euh, kinkiliba boo jox sa sa sa njaboot kenn mënatul jënd meew xaalis amul lépp cher pouvoir bi dafa tu euh, kenn tuuti ah donc président Diomaye toogal ci sa réew mi nga lijjanti ko nag bu ñu passé élection yi xanaa di nga toog defe naa foofu la réew mi toll ñu jàppante bokk ndey bokk baay xuloo jaru ko xeex jaru ko parce que bu fruit des fruits, ñun ça, des bénéficier mais bu vous avez des gens, la avez euh, des la yow des dafa bañ avez wala dafa bañ des Vous dafa jar Vous avez diw man Vous gisuma ko yow yorul sama Vous yoruma des mais dañuy wax li am rek avez Sénégal bëgguñu dëgg avez des bëgg Vous nit des xamante Vous dañuy wax safaan di nax nit ñi di nax sa askan

campagne bi dina dina dina commencer dimanche fii laay ñëw di leen wax li am ak lu amut bu soobee yàlla bu dee yàlla muy sàkk jëlul sama bakkan bii tëjul sama gémmiñ gii fii laay toog di leen wax duma fi orienté kenn nag waaye li am ma am ci ay information dinaa fi ñëwaat toog bu soobee yàlla wax leen ngeen dégg